ci noonu Ahmed Ndoye dafa maanaam fiiroon benn xale accident bi mi ngi am ca diwaanu Sébi Xotaan maanaam euh, euh, accident bi dafa xaw a métti parce que après euh, xale bi da cee amee ay fracture yu xaw a métti sax mais heureusement ambulance dafa teel a ñëw daal di koy récupérer am ay soins yoo xam ne def na defal na ko Ameth Ndoye woo benn rakkam bu yor benn boutique orange ci la ñëwee fayal ko frais frais soin wu xale bi après gendarme yi daal di intercepté Ameth ne ko andi sa permis de conduire mu ne moom attestation la yor permis de conduire am mi ngi Dakar mu ne attestation la yor waaw bi muy jooy fekk na ni mbëkk na xale bi ba pare jooyam yooyu xam ngeen ni jooyu musiba kese la xam na li ko doon li ko doon euh, xaar magum jëm bu toog di jooy xam na li ko doon xaar jooyu musiba dog musibaam la doon jooy léegi moom ñu laaj ko permis wam mu ne attestation la yor permis wam mi ngi ndakaaru léegi moom dañ ko joxoon euh, délai parce que ba démb à 18 heures joxeegul woon pe andeegul woon permis parce que dañ ne ko andil permis parce que am na garantie bu mu fa bàyyi ñu ne ko andil permis bi yow ñu ne la andil permis bi ngay dem toog ci plateau télévisé yi di jooy di expliqué naan feesal na are naa nee nañu dinañu am cinq mille cinq cent millions alors que yow tu avais des choses beaucoup plus importantes à faire maanaam dem wane ji sa permis non seulement ba démb à 18 heures yóbbuwul permis bi moom Ahmed Ndoye benn oto Ford Escape la yor gris ñu immatriculé ko AA 508 BP bi ñu ngi ko jàpp foofu dem man yor naa sax ba yor image wu oto bi fi ñu ko jàpp fi ñu ko téyee boog mais comme dama doon def samay investigation ma ne ci fat mais à ma plus grande surprise ma jékki-jékki gis Ahmed Ndoye toog ak Cheikh Yérim Seck ne dañuy conférence de xam nga maanaam moom xamoon na li koy yor à diir xam nga dañuy dof dof lu mel dañ naa leen kër dof yi ngeen ngeen dëkk ngeen dem ba mooma bëgg koo dëggal te dafu leen jinne jàpp leen bi dara pesu leen andi sa permis lañ la wax ngay bënn sa bët di jooy naan nee nañ feesal nañ arena dem ak Cheikh Yérim Seck di def conférence de presse dem ba naan da ngay porter plainte la police mais attendez man dama ne euh, Ahmed Ndoye est-ce qu'il a tout dit à wala dadi mburu foofu ko fori wala quest taxaw ne yow da ngay sa mouvement waaye yemoo si porox ndollu ci sa ay problème ci wàllum accident ba ba Cheikh Yérim Seck daal di ne dañoo effacé sa numéro permis ndax ñoom dañoo dugg ci base de données yi at mi si zijo si xanaa loo xamante ni maanaam balaa ñoo mën a supprimer numéro permis il faudra que dama ne sama gars yi ñu demee xel nekkul ni dañuy xëy nii rek supprimer numéro permis commission mooy daje waxtaanee ko réunion ko waxtaanee ko en commission dem ba trouver consensus si bi ñu jàppee ni kii waratul am permis wala def nga lu doy a doy waar ba war a mën a tax ñu nangu sa permis yow waratoo am permis ci lañuy ñuy loolu ci base de yi dañuy jàppee nit ñi ay dof wala beneen chose tam mi ngi ci bu fekkente ne nee nga yow def nañ ay recherche waaye sa numéro permis nekkatul ci base de données bi loolu ñi muy dal ñeneen waxuma nag c'est le cas de waaye ñi muy dal ñeneen day fekk ne ñu yor faux permis maanaam permis boo xamante ne dañ koo lijjanti faux permis boo ko yoree yow maanaam sa numéro boobu noonu du nekk ci base de données bi c'est-à-dire da wax ba dugga seen bopp que man naa laajte naa ut ay information comment comment sa ça peut se naka lañ mën a jàppee nit ñi nii rek du ci ko tak mu ne effacé nañ sama numéro permis ci base de ba lañ dugg depuis matin maa ngi laajte mais comment c'est possible ba pare Ahmed Ndoye lan la fi tekki lu war a mën a jar ñu mën a naan dañuy dugg ci base de données pour effacer numéro permis yoom comme si il était important moo tax sama gars yi sànq ma ne leen focus leen bu leen kenn divertir bu leen kenn manipuler munoo fiir doomu jàmbur ba pare ñu lay laaj permis amoo permis ba pare bëgg a ñëw naan da ngay lancer sa mouvement di def sa conférence presque presse di wax sa yu rëy ba pare naa da ngay porter plainte la police loolu yabaate la. moo tax dafa pare conférence de sam am rek ñu ne ko coppet yóbbu ñu nag yéenewuñu kenn kaso. waaye am na yoo xamante ni rafetul ci ab réew pénc boo ci nekkee da ngay dox doxalinu pénc ba régler nekk nit léegi nag dañuy dinañu xëy ne waaw Ahmed Ndoye détenu politique la dinañu xëy kaawu Samba Ndiaye mi ñu interprété ko neneen moo tax ma ne ma ne liy woo ci vigilance fi ngeen teg curseur bi baax na yéen da ngeen di protéger projet bi waaye bu leen nangu ko détruire projet bi yaanaa qui protège le projet waaye yaa naa yoo xamante ni dinañ ci buruxlu pour détruire ce projet jëli ngeen moo tax ma ne leen na ngeen focus continuer leen ci vigilance bi continuer leen ci bàyyi xel l'action du gouvernement waaye continuer leen ci focus ci élection yi ñu jëm parce que yu ci bëri tamit tamit diversion la ah te ni ci suba di ngeen ci xam dara parce que dañ koy xëyee ci seen ay ëttu yenn kaay yenn plateau yi duñu waxtaanee lu dul loolu waaye nañ koy waxee ak na amee du demee noonu alors que l'on sait que kaawu Samba bii le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre ils sont de bonne foi waaye li may wax mooy plus de vigilance bu ñu leen proposé ci kenn dem leen ngeen def seen ay recherche bu ñu la nee Grand Dakar la dëkk demal ca diwaanu Grand Dakar dafa say recherche bu ñu la nee meeru Dalifort la demal ca diwaanu Dalifort xool naka la yoree mairie ba est de bon fois est-ce que ay loxoom set na yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni en une minute wala une heure de temps état mun na koo xam parce que appareil yu état du ay foo ay caaxaan askan bi nag dañ leen yoon ni yàqanti leen waaye wóolu leen te dafa am solo. nañu préserver loolu léegi focus ci élection yi bu leen nangu ku leen divertir man maa woote focus man tey focus ci protéger le projet focus pour bañ a permettre à qui que ce soit de détruire ce projet parce que ñenn ñi ci réseau yi dañuy bëgg a protéger ce projet moo tax ñu naan Samba Ndiaye Samba Ndiaye Samba waaye ñenn ñi dañ ciy pour parox ndoolu pour détruire ce projet nañ ci bàyyi xel gars on s'est pas battu ba heure bii pour lan bàyyi ay manipulateur di doxal déedéet du demee noonu dañuy ànd ak projet bi ànd ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ak le premier ministre Ousmane Sonko ànd ak ñoom ba le 17 novembre ñu jox leen majorité absolue à l'Assemblée nationale waaye ñoom tamit dañuy bàyyi xel bu baax a baax wàllu nomination yi parce que lobbying yi am na ku ci nekk sa intérêt ngay ñenn ñi bokk. am na ñoo xamante ne buñ la proposé nit rek c'est parce que seen nit la wala bëgg nañ mu am poste alors que yéen rupture ngee yi doxee tey bu ñu xoolee ni yow proposé nga ma kii ma gis ni askan bi ñëpp beddi nañu kooku sax yow mi ma proposé diw dama laa war a ragal dama lay daw nag dama lay daw à moins que ma xam ne peut-être que yow aussi tu as été manipulé mais nañuy moytu yooyu nañu koy moytu te bañ a wax ñenn mañ a bañ may ñenn ñi lu ñuy wax parce que am na ñoo xamante ne dañoo socc ba pare bëgg a ree ma wax de xam nga man fan yi moom gis na am na benn anecdote bu ma leen bëgg a nettali am na benn journaliste boo xamante ni dañoo am ay ñagas-ñagas suñu diggante parce man damaa jàpp ni c'est un manipulateur man dama jàpp ni day lëndëmal xelu askan bi man damaa jàpp ni man maa nekk ci yoonu dëgg parce que dëgg laay xeex parce que damaa gis ni jamono bi ñuy néewal doole Ousmane Sonko c'était de l'injustice ma taxaw ne non moom il était bon je li ma doon défendre neexu ko ñu dem ba suñu diggante am ñagas-ñagas ci loolu après la présidentielle ñuy wax téléphone sur un sujet bien déterminé mu ne ma Salma tu es ma petite sœur et on va se retrouver tôt ou tard ma ne ko toi et moi je ne pense pas parce que bokkuñu ay principe mu ne ma si on va se retrouver ma ne ko quand mu ne ma d'ici deux trois ans est-ce que dégg ngeen li mu bëgg a wax foofu maanaam li tax ñu am ay divergence sama ngëm-ngëm la jàpp ni bokkut ak bosam léegi on va se retrouver li ñuy boolewaat mooy Euh, maanaam gouvernement bi wala régime bi wala projet bi dina échec te bu ñu échecgee man dinaa rendre compte ni man li ma doon défendre baaxul waaye loolu moom li mu doon défendre moo baax ba loolu moo ñu nar a boolewaat ils réfléchissent ainsi bi ma waxee loolu ma ne ko yàlla bu ñu mës a retrouver wu si c'est ça sa booxul ma la si c'est ça bu ñu retrouver wu parce que man li may ñaan mooy jàmmi Sénégal te jàmmi Sénégal projet bii antu mooy sax moo moo moo koy def anecdote bi li tax ma ma wax leen ko mooy pour ngeen yi bàyyi xel am na ñoo xamante ne dañoo soccu bëgg a ree te journaliste yu bari bu subaa ci seen une dinañ ci porox ndollu ñenn ñi dinañ toog chronique dinañ jë seen temps nag ñenn ñi dinañ laay dinañ jël seen temps bëgg cee porox ndollu encore une fois le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre nañ leen a dooleel ànd ak ñoom def leen say parce que dooloo mooy booloo mooy boole mooy doole waaye ñoom itamit ñu gën a ci nomination yi xool bu baax a baax ñi ñi